loo waxoon waxal ñu dégg avant ana <laughs> ana président ah, ah suñu président def ko bismillah alors jigéen naka accueillir ah, avec euh, beaucoup de détermination hmm. parce que nee naa ne ren avec sa casquette d'artiste, mais en tant que leader. J'ai été alliée et membre signataire de la charte, euh, membre de la coalition Diomaye Président. avec beaucoup de fierté parce que xam nga que yàlla la ndam dafa et nous avons sillonné tout le Sénégal, le Sénégal en profondeur avec le président Bassirou Diomaye Diankar Faye. Nous euh, savons les mots de la société savons la jeunesse bi lu ñuy nous savons ce li ñëpp bëgg donc di ñaan rek euh, euh,

seen xel dal na. waaw suñu xel dal na te xam nga xam nga boo liggéeyee yàlla may la ndam da ngay kontaan te ñun nag loolu moo ñu daal <laughs> dañu liggéey yàlla may ñu ndam ñu am ndam la seet wicc bu seet daal nag yan bi oyof ci moom seet du guye guye guye guy ndax suñu président xale la te mën na. waaw eh. xale la te mën na. aca ah, bokk <laughs> lan la woy bi wax. ah bon. Ah, dugg dugg waay. Ah, dugg dugg waagaan ànd ak merci qui se rapproche euh, allez messieurs rapidement euh, euh,